am naa si lu ma metti trop en tant que femme discrimination bi am si métier bi dafa metti lool en tant que femme ñun ay jigéen lañ mënoon nañoo génn di jaay suñu bopp te defuñu ko dañuy liggéey comme ñëpp dañu war a respecté jox ñu bàyyi di ñu di ñu ci terrain bi. nga dem fenn war a filmer ñu lay buux di la def yu metti des fois sax da ngay découragé bëgg a arrêté li ngay def ne lii est ce que jar na ko tamit parce que jigéen tamit nit la comme ñëpp li góor mën a def jigéen mun na ko def. ñu jàppale ñu ñun jigéen ñi liggéey liggéey la rek niñ si nekkee di góorgóorlu ñu jàppale ñu si bàyyi di ñu def yenn yi ay jigéen lañ ay raq lañ ay yaay lañ dañ ñu war a jàppale ñu liggéey liggéey bi comme ñëpp. mu koy condamné góor warul dóor jigéen en tant que homme de tenue jàng xam li nga xam ne nii mooy droit ak devoir di dóor jigéen loolu du yoon du yoon de.